bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaamu ala rasulillah seydina muhammad sallallahu alayhi wa maa ngi doore kàddu gi di nuyu eh, sang bi di ko ziar di ko màggal bu baax a baax a baax te di ko masaw tamit xam naa ne jamono ji dina xaw a metti ci moom waaye mbég dëgg bànneex la kon dañ koy sante yàlla bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne teew nañu fi di ay kilifa doore ci cheikh Mouhamadul Bachir Abdou Khadr di porte parole euh, xalif bi di nuyu soxna maam xari Mbàkke Murtala di nuyu sëñ Bass Poroxaan di nuyu sëñ Koso ak njabootu sëriñ bi yépp ñetew teew ak ñi di sant yàlla gannaaw bu ñu mayee ñu fekkee bésub xéwal yi ñuy dem may ñu tamit ñu ànd ci gu yaram ak tal ko ba mu oyofal suñu tànk yombalal ñu ko ñun ñëpp ñi nga xamante ne ñu ma bëggoon a àndal ñu teew fii sa kanam Mbàkke di la ziara di wax suñu mbégte gu rëy rëy rëy gu ñu am ci gannaaw bi ñu fi ñuy fekk la fi njaboot gi yépp te di jublu ci bés boo xam ne avant mu doon jot la waxoon premier ministre na xool ak yenn ministre yi nga xamante ne ñoom la seen loxo gën a dugg ci liy euh, defar ci liy yombal ci liy màggal lépp li nga xamante ne ci bés bii lañuy jublu rawatina ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ndax dafa tombé maggal màggal ci nawet ak ministre des transports ak ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ministre de du commerce ak euh, ministre yëpp nga xamante ne ministre de l'intérieur de l'urbanisme ak ñëpp ñi ma àndal daal ak ministre microfinance yëpp ma gën a sax yaatal délégation bi ba ñi nga xamante ne dañuy ñëwoon dem leen ne nañ fa delluwaat ndax demoon ngeen pour wax li ngeen li ñu leen santoon fan ngeen ci am lan ngeen ci def ak naka ngeen di waajalee déwén incha allah rabbi ba jafe-jafe yu fi nit mën di dajeel déwén mu doon loo xamante ne lu mu fi dul fekk la wala tamit bu ko fekkee mu oyof lool ndax nu muy wàññeeku. loolu moo waral délégation bii ma àndal te nu ma toll rek xeeb naa ko ndax fii mënuñu fi def dara loo xamante ne doy nañu bu mu am satisfaction li ci def rek lu ñu xeeb la di la sant nag ci yóbbante yi may dégg nga koy yóbbante sëñ Mbas te mooy woo di mu ko wax muy sa jàppandal ak say ñaan ci réew mi soxla nañu ko yaakaar nañu ko kon dañuy sant yàlla gannaaw biñ ko amee te mu dakk te mu sax dakk nag ànd ak yéene gu yaata yaata yaata gu sell nga jëmale ko ci ñun jëmale ko ci réew mi kon alhamdulilah rabil alamin ñun tamit dañuy delloo di sukk di ñaan sunu boroom mu may la wér yaram gu dëgëra dëgëra dëgër te may la gudd fan ba fi nga féetee di gunge njaboot gi nga mën ko gunge fu sore sore sore sore sore lépp ànd ak tawféex ak xéewal bés bii ñuy dem nag bés bu màgg la te lu ci nit di wax rek lu mu bàyyi moo ëpp ndax borom bés moo toll noonu kon lépp li nga xamante ne waxoon nañu ko ci côté engagement gouvernement lépp luñ ci mën def nañ ko te dañuy continuer def ba keroog bés bi romb ñu continuer di def pour ba bés bu ñëwaatee mu gën a fekk ne lu bari ànd nag tawféex fii incha allahu rabbi tànk yi moo nekkoon li nga xamante ne waxoon naa su ma ñëwee naa la ko feddiliwaat ndax yàggu rek jaar naa fi doon la ko wax te nuñ ko waxtaane woon noonu lañ ko jëfee te liñ ci def rek li ci liñ ci am yéene def moo ëpp maa ngi doon waxtaan ak ministre de l'hydraulique la de l'assainissement mu ne ma bu mu woyteeg yow keroog ñëw ziyaare si la wax na la suñu yéene gu yaatu gu ñu am ci régle problème mu ndox définitivement Touba ak régler problème assainissement définitivement Touba te sama mandat gii ma yàlla nattoo ci kaw Sénégal loolu mooy sama premier projet boo xamante ne baral naa ko bu fa bu fu mën a yem pour ñu mën ko gaaw a commencé ndax lii doon problème boo xamante daf fete gannaaw te incha allah rabbi yàlla dina ci may ndam ndax ñaan nañ ko ko yaakaar nañ ko ci te ñaan ñi ci ñaan tamit ba barkeel ko yaak am nañu nu yàqin ni dinañ ci am ndam bu soobee yàlla mu doon taw tawféex ak noppalu ci population Touba waaye yeneen population yi nga xamante ne projet bi nar leen traversé muy Thiès muy mbuur ak muy Dakar lépp nag ay xéewal la rek ay xéewal la te wax dëgg yàlla ki nga xamante ne moom moom moom bés bi léppam ay xéewal la léppam teraanga la te léppam njàngale ak njàngale ak defar ruux ak defar doomu aadama ci loolu la ñuy góorlu ci li ñu yàlla dénk di roy ci moom lu bari te luñ ci roy rek lu ñu lu ñu mën a gën a royee ci ëppati ndax wax dëgg yàlla xéwal kese la lañu ñu ci loo xamante ne royuwaay la kon sant naa yàlla bu baax a baax bi ma teewaloo fii li ñaan ma mayaat ñu ñu teewaat ko ay at yu bari te saa ñu fi ñëwee rek ñu am ñun ci suñu bopp mbégteeg def li nga xamante ne dina yombalal ba bu fi ñëw bés bi nga xamante ne kenn bugg ko wuute ak foo mënte nekk biir réew mi bi bitim réew kon salaamaaleykum wa rahmatullah